salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu samay mbokk yu senegal yu may seetaan man la Baye Mbaye Niass MC ma ñëwoon di waxtaan ak yéen ci lii nga xam ne tey moo lëmbe Sénégal muy ci problème mu Adji Sarr mi nga xam ni dafa waatee Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ay mbokk taalibe ni ñoom tourné ñëw di ko attaqué waroo tudd Cheikh Ibrahim Niass may xamal Sénégal na leen bugguma ci woon a wax waaye dinaa wax ndax dañu bëgg polémique bi mu mën a arrêté Adji Sarr taalibe baay la parce que ay fameem ay taalibe baay lañ Adji Sarr lum tuuti tuuti bale na biir mbiri na Baye bale na kër baay bale na juma Mawlana Cheikhul Islam bi moom ak frère am Famara Sarr ak ay cousin am ak yéppam ay taalibe baay lañ ñu ngi jokk ci man xataa il bi nga xam ne mooy jir na fañ nekk walla maya wala nga dem jam ñaajo wala nga dem Rofongin wala nga dem bawut wala maya wala nga dem jam ñaajoo walla nga dem Rofongin wala nga dem Bawut ak île des Saloum bi yépp soo ko doon calculer la ñu fa yore ci mbooloo ëpp na sept mille wala cinq mille ci ñoo xam ni ay doomu shababul fayda lañ kon su waatee bàyyi bàyyi la war a waatee ndax ci la juddu ci la màgg kon soxlawul ñun ñëpp ñu taxaw di polémique warta waatee bàyyi warta waatee bàyyi am na problème kim ko am ak ku baax la moom lañ mën a seede ci moom muy président Sonko ndax li ma mën a seede ci moom jullit ak wax ju teey yàlla def na nee nañ sosal na ko sosalu ko waaye justice mu ngi fi war a àtte te na àtte li yoon nañ bàyyi yëf yi ak justice justice àtte li yoon ndax ki àtte fii loo mën a àtte ëllëg di ko àtte damay wax rek faraluma ci kenn faraluma duma APR duma Sonko duma leneen man senegal la bërki démb rekk yàggul gis ngeen jabaru président génn ma tagg ko ci jëfam yu rafet ak jëfam ju baax parce que daf ko wane moo tax ma tagg ko ci loolu muy Marème fay Sall waaye dama tourné tamit xalab jëkkëram te mënoo gërëm jabar xalab jëkkër waaye dama gis ni li jabar ji def président defu ko moo tax ma xalab ko te dara mu ngi nii ñëpp a ko déglu rafetlu wax jooju kon tamit aji saar yéen taalibe bàyyi na ngeen xam ni aji saar taalibe bàyyi la ak lu mënta xew taalibe bàyyi la man mii di taalibe bàyyi wala may doomu bàyyi mun naa am samay sikk yoo xam ne ci man sama biir la nekk te terewut su may waat barke Baay Ñas lay waatee loolu doomu aadama bi la amul dara ak lu uteeg lu mu lu mu uteeg taalibe bàyyi la wala bul tudd bàyyi déedéet jullit moo gën a foor te jullit bi mu ngi wax dara ba pare di waat ci yàlla est-ce que li muy wax dëgg la jullit baa ngi def dara ba pare di waat ci yonent bi est-ce que li muy wax loolu dëgg la mais kon bàyyi leen yàlla moo gën a foor Cheikh Ibrahima Niass fuuf yonent bi moo gën Cheikh Ibrahima Niass fuuf cheikhul islam est-ce que su waatee woon ci ñooñu polémique bi dana demee nii moo tax ñun ay taalibe bàyyi yar lañ ñu xamee nañ ànd ak yar man nag li tax tey ma fël wax mooy wax ji dafa war a arrêté te man mii tamit ëllëg am naa ci responsabilité ndax sàmm bu nekk dinañ la laaj noo sàmmee woon sa njaboot ak nu mu ak nu mënti mel Adji Sarr sama doom la ndax ba muy neex mu doon ñëw ci man man nag ci benn place laa toog xaw ma luy xew ak lu dul xew waaye daal li ma mën a seede ci moom sama doom la dana doon ñëw di xidma si di ñëw gàmm di bale kër di bale jumaaja di bale lépp loolu mun naa ko seede ci moom ak frère am foo turne xool ci gannaaw di nga gis Famara dana nekk sama gannaaw lii laa amoon pour wax ko senegaal pour ñu mën a xam tamit taalibe bàyyi ñu mën a xam ni li ma booleek Adji saar bëgguma woon a wax waaye wax ji dafa war a arrêté warta tuddubaay baay warta tudd baay ku nekk li nga am ngay tudd li ma mën a seede ñaari jullit ñoo jotee li ci des justice la pour ñu mën a xam tamit taalibe bàyyi ñu mën a xam ni li ma booleek Adji Sarr bëgguma woon a wax waaye wax ji dafa war a arrêté warta tudd baay warta tudd baay ku nekk li nga am ngay tudd li ma mën a seede ñaari jullit ñoo jotee li ci des justice la yàlla na justice àtte li nga xam ne mooy yoon te yoon googu lañuy ñaan mu nekk ku ci tooñ baalu sa moroom sa moroom baal la ku ci tooñ baalu yàlla yàlla jéggal la ndax yàlla borom yërmande la lii laa amoon pour wax Sénégal te nañ bàyyi far far far di tourner yéen a ngi saaga sëriñ si yéen a ngi saaga kilifa yéen a ngi saaga amul solo nit ku nekk senegal ñun ñoo ko bokk ku nekk am nga sa xalaat pour def ko waaye su fekkee man MC Niass rek la képp ku ma saaga baal naa la képp ku bëgg a saaga su ma rusutoon ñu may seetaan ma daggal sama bopp waaye duma def loolu ndax dañ ñoo yar kon nag yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim muy suñu yaakaar di leen wax ne Adji saar nag wax dëgg yàlla du doxandeem ci Sénégal loolu rek laa amoon pour wax leen ko salaamaaleykum wa rahmatullah